ndax bu jiitee boo wàññee ñi ca des ñi fukk ak ñaar ak moom kon mu daal di doy waaye bu fekkoon ne keneen ci ña fa dëkk dëgg dëgg moo bëgg a jiite moom mi ñu bëgg ko wàññiwaale ci fukki ak ñaar julli ga yàqu ndax fukki ak ñaar moom day aajoo ñu dëkk fa dëgg dëgg te ilimaan ji moom sartuñu mu dëkk fa dëgg dëgg kon daañu caxe foofu di wax naa waaw jëmm joo xam ne bu doonee ilimaan jullee wér ñoom jiite itam seen julli wér te nag bu doonoon maa moom man day yàqule ñoom ñëpp ñu bokk yàqule loolu nu mën a amee mooy lii rek jumaa la joo xam ne mbooloo ma fukk ak ñaar dong lañu nga xam ne ñoom fa lañu dëkk ka leen di jiite nag doon ko fa tukki si koo xam ne yéene na faa sax ñeenti fan baalu ko ëpp loolu rek a tax jumaa ja war ko kooku bu jiitee rek mu baax waaye bu kenn ca ña fa cosaanoo jiitee moom ñu bëgg koo ñëwaale ci fukki ak ñaar kon nañu jàpp ni moom bokkul ci fukki ak ñaar lim ba daal di manqué julli ga daal di yàqu ci ñoom ñëpp sartu ñaareel bi ci limaan ji mooy na boole xutba ga ak jiite julli ga ni ñu man ci julli korite mbaa tabaski nga xam ne kay jiite julli ga ak ay xutba mën naa bañ a doon kenn bu dee ci jumaa moom ka def ñaari xutba ya moo war a jiite julli ga lu may nag mu am ngànt loo xam ne nekkut ngànt luy gaaw a deñ su boobaa kon na wuutal keneen mbaa mbooloo ma wuutal keneen waaye bu dee sax ngànt luy gaaw a deñ moom ni ki daa fàtte ni moom kat jàpputoon rek te waaj daal di ñëw yomb na faaw dañ koy xaar mu daal di waaj ñëw wa bi xutba ba tey ni ak ci ñaari xutba min xiyaamin ci ab taxawaay ba ànd zawaali ci gannaaw rëcc bu jant mimma ci la nga xam ne tusammihi dana ko tudde al arabu arabi xutbatan xutba daaxilal masjidi ci biir jàkk ja itam sartu ñeenteel bi mooy ñaari xutba yi nga xam ne moom la ñuy xutba njëkk julli ga boo nee mooy sartu ñeenteel bi itam di ëmbaat ci biiram ay sartu yu bari bokk na ca faw kay xutba ndegam mën naa taxaw amul ngànt day taxaw ci wax ji gën a wóor nee nañu taxaw ga xutba te bañ a toog warugar la woo xam ne su ko bàyyee dana ci yenu bakkaar te du tee nag julli ga wér nga dolli ca bala ñoo xutba faaw tisbaar day jot su xutba woon te fekk tisbaar jotagut du baax nga teg ca faaw dañuy xutba ci biir jumaa ja su ilimaan nekkoon ci bitti xutba fa duggul ca biir jumaa ja xutba ga du baax julli ga du baax nga teg ca faaw mu yëkkati kàddoom lu mu gën a yëkkati ku gën a baax waaye xutba yi mëni su ko ñàkk biral nga dolli ca faaw arab lañ koy waxe doonte sax mboolem ñi muy jiite ñëpp ñëpp kenn du ci ab arab kenn déggu ci arab it xutba bi moom ci arab la koy def loolu nag ci jamono yu njëkk yi la léegi ñi nga xam ne ñooy gëstu wàllu fiq ci doxinu adduna bi nee nañu sañis naa def xutba bi ci weneen langue bu bokkut ak arab waaye nag waa Tuubaa ñoom ba tey dañoo jàpp rek ci cosaan la seen xutba ñoom duñ ca rax dara ndax bu ñu nee dañoo bëgg rek ñuy julli si xam lañ wax ca xutba ba mënees na balaa ilimaan bee ñëw am ku jiitu wax mbooloo mi liñ bëgg a waxtaan ak ñoom ci xutba bi su ko defee bu ilmaan bi dikkee rek aw ci cosaan daldi wax arabu kese nga dolli ca xutba bi faawu day sës ci julli ga buñ leen teqalee teqale bu yàgg rek du baax nga dolli ca faaw lim ba nga waxoon ni mënta ñàkk muy fukk ak ñaar yu bokk te ilimaan faaw fukk ak ñaar nañ teewe xutba ba niñ ko waxee woon buñ doonoon fukk ak ñaar doom am ca koo xam ne ba muy ñëw fekk na ñu xutba ba noppi du baax qabla salaati ci njëkk julli ga fa in axarahuma ndéem yeexi na leen ñoom ñaar oxiidat kon baamoof ko in xaruba ndéem jege na moom jamono ja nga dolli ca xutba bi faaw day jiitu julli ga bokkut ak korite mbaa tabaski nga xam ne julli ga mooy jiitu xutba ba mujj bu ilimaan juumoon ba njëkk a julli jotaguta génn jumaa ji te yàggul dara kon day baamu julli ga mel ne kon sës na ci xutba ya waaye bu fekkoon ne yàgg na mbaa mu génn jumaa ja rek lépp day yàqu kon day baamuwaat xutba ya baamuwaat julli ga nga dolli ca xutba ba na doon la arab yi daan tuddee xutba biñ ne xutba ñoom mooy waxanteeg mbooloo ma loo xam ne amal na leen njariñ ci buñ ko defee mbaa buñ ko bàyyee nga xam ne bu yamoon ci tudd yàlla rek mbaa julli ci yonante bi rek amut benn njariñ bu mu leen di xamal dee su ko tuddee xutba lu mu gàtt gàtt nag bu ëmbee loo xam ne mën nañ koo jariñoo ci seen wàllu àdduna mbaa ci seen wàllu alaaxira rek lu mu gàtt gàtt daal di doy bu yemoon ci ittaqullaha fi ma amar wantahu xamma xanhu naha wa zajar ragal leen yàlla ci def la mu leen digal ak ci bàyyi la mu leen tere képp yem ci itam du tee mu doy waaye nag bu jekki woon di sàbbaal mbaa muy kàbbar mbaa mu ñaan rekk du tax mu doy balaa tudd xutba daal mu wàqanteeg mbooloo ma loo xam ne mën nañ caa jariñu ci buñ ko defee mbaa ci buñ ko wattandikoo lum néew néew baax na yaax bi de door a indi yaax buruhuma yoo dina leen teewe aljamaaxatu mbooloo ma maanaam niñ ko waxee woon léegi ñaari xutba yi faaw rek mbooloo mënta ñàkk bi fukk ak ñaar nañ ko teewee niñ ko waxee woon léegi bu ñu yemoon ci fukk ak ñaar am ci koo xam ne teewul ba ñu xutba gannaaw ba la ñëw rek du baax suñu nee du baax rek mooy dañuy bàyyi léppi jullik jumaa ga ak la ca aju te julli tisbaar bu lim ba teewee rek nag mu baax teew ba noppi ñàkk a faale xutba ba bañ koo déglu mbaa ñàkk xam la muy tekki moom du ca wàññi dara wa bi jaamiin ak ci jumaa mabni yéen judi juñ tabax xalaa xaadatihim ci kem seen aada muttaxidin gi aji nekk benn fa in taxaddada ndéem li mu na moom jumaa ja fal xatiiqu kon aji jëkk ja ci julli mooy wér wa in taaxara ak doonte yéex na adaa an ci ak joox muttasilin ju di aji jokk it bi baladiha ca dëkkam ba laa inin fasala waxunu ndeyam facc na maanaam sori na ko kasiran lool aw xafa wala wayaf binaa uxoo tabaxam ba sartu juróomeel bi mooy faaw rek ci jumaa lañuy jullee jullit jumaa ga mu door a baax bu ñu nee nag dañuy sart ñu jullee ko ci biir jumaa dañuy xamle ne bu ñu làkk-làkkalee rek ay doj wala ab barrière wala tegalay móol rek ba mu wër du tax ñu jàppe ko juma buñ ci jullee juma itam du wér dañuy sart rek nañ defare jumaa ja bu mu yées seeni dëkkuwaay ñoom nit ña bu dee mag ña nga xam ne ay néegi ñax lañ daan dëkke jumaa ja mën naa doon néegu ñax bu fekkee dañ ne bi seng xewee seng moo gën a foor néegum ñax kon yooyu jamono dañuy def jumaa ja seng jamono yi tabax xewee nag li ki jamono yi faaw rek kon jumaa ja dañ koy tabax lañu bañ daal mooy nañ defare néegub yàlla bu muy jumaa ja yées seeni dëkkuwaay de sax sartuñu ne faaw dañ koy tabax tabaxin sàngam woo xam ne mënu caa ñàkk lañ jublu daal mooy nañ defare jumaa ja bu mu yées seen dëkkuwaay bopp nga teg ca jumaa ja na nekk ci biir dëkk ba mbaa boog mu sës ci rek mbaa boog mu bañ koo sori lool bu xësee sori dëkk ba rek buñ ca jullee du doy nga dolli ca nag nay jenn jumaa rek bu fekkee ne foofa du dëkk bu mag a mag ba aajowoo ay jumaay jumaa kon jumaa ja na nekk benn rek suñu demee nag ba jumaa jooja dafa xat te mëni su ko yàqali ndax foofa daa sës ci am ndox ñu tabax jeneen jumaa nag muy yaar waaye xataayu jumaa ju njëkk ji te mëni su ko yàqali moo ko laaj ba tey loolu baax na ba tey nee nañu bu fekkee mbooloo mu dañoo xàjjalikoo amuk noonoonte ba nga xamee ne buñ dajee ci jenn jumaa faw ñu jàppante xeex te kenn du leen mën a lijjanti ba tey kon mën nañoo def yaari juma ñee féete fee ñee féete fee bu ñu nee nag barab bi bu xasee am juma la ko wër tolloog juróomi kilomètre ak genn wàll ku fa nekk war a julli si kon li fekk nga xam ne jenn juma jooju xaj nañ ca amuñu ngànt kon ñoom ñëpp dañuy ñëw ca jooja rek lu weesu nag juróomi kilomètres yaa genn wàll moom mënees na fa tabax jumaa bu fekkee ne ña fa tase mat nañ mbooloo ma ñu waxoon ci defar jumaa bu ñu defee nag lu ëpp jenn jumaa te jenn rek fa waroon a nekk kon dañuy seet ya nga xam ne ci la njëkk julli julli jumaa duñu seet jan moo njëkk àgg ja bañ koy tabax dañuy seet rek ana jan jumaa la njëkk julli julli jumaa ñu jàpp ne jooja mooy ju njëkk ja ku ca jullee rek am julli ku ca julleewut doo am julli dañoo jublu rek jumaa ja nga xam ne moom la njëkk a ubbi moom la njëkk a daloo wa int axara adaa an ji wax nag mooy buñ àggee ci benn bisu àjjuma boo xam ne jumaa jooja njëkk a daloo bañ waxoon ne ca dëgg-dëgg mooy jumaa ja ku ca julliwu doo am julli moom daa yéex a julli ba jeneen jumaa ja jiitu ko itam du tee rek ku ca jullee am julli ku jullee ci jeneen ju bokk te jooju rek doo am julli waaye nag bu fekkee ñoom ñëpp ñoo maase ci bàyyi jumaa ju jëkk joojee dem di jullee ca ja ca des ba tey loola baax na li ñu bañ rek mooy yaari juma mbaalu koop nekk fa te jenn fa waroon a nekk ñu jàpp ne jën njëkk a taxawal julli juma rek mooy wér yooyu jamono moom ku bàyyi jooju dem ci jeneen doo am julli waaye buñ maasee ci bàyyi juma jële def ko lu mel ne ab jàngukaay mbaa leneen dem ci jeneen juma ñoom ñëpp ñu maase ca ànd loola dara nekku ca bu leen neexee itam ñu wëlbatikuwaat ne dañu delluwaat ci jumaa ju jëkk ja moom daal ñu bokk kàddu ji féete ci jenn jumaa dara nekku ca xaajalikoo ba nag ci loo xam ne wartoon am jenn jumaa fa waroon a nekk ñee dem fee ñee dem fee te wartoon am su boobaa niñ ko waxee rek jumaa ja njëkk a julli ku ci jullee am jumaa ku jullewul ca jooja doo am jumaa wala yushtaratu deful sart saqfuhu ak téegam maanaam xadd ko mooy teg ko wutal ko plafond wala qasdu tabidiha du caageenu namma dappetal julli jumaa ga bii ca jumaa joojee aw iqaamatul xamsi wala taxawaluk julli juróom dafa am sart yoo xam ne borom muxtasar andi woon na ko doon ci wax wuute ba ca am moom nag mu far la wax la ci gën a wóor rek mooy jumaa ji buñ ko yëkkatee ba mu taxaw rek dal nay baax duñ sart ne faaw dañ koy xadd buñ mënee rek bu julli ga jotee ñu julli fa jumaa ja moo xam dañ koy baas mbaa nuñ koy def rek ba mën caa jullee dal nay baax duñ sart ne faaw ñu xadd ko daa am na ñuy wax ne faaw dañ koy xadd ba tey duñu sart ne dañoo war a dogu ci jumaa joojee rek ca la ñuy saxal di ca jullee duñ ko fa toxale yóbbu ci jeneen lu may ci ngànt ba ñu noppee ci jumaa ja rek saye boo ñu tàmbali di ca jullee nañ ko waxee woon bu leen soobee ñu dem ba yàgg ñu bàyyi jumaa jooja tabax jeneen te bokk ca dem bu leen neexee itam ñu nekk ci jooja ba yàgg ñu ñëwaat ci ju jëkk ji duñu sart ne balaa julli jumaa gaa baax ñu dogu ci ci la ñuy saxal di ci jullee julli jumaa gi lay bon rek mooy def yaari jumaa xàjjali ko ñee di jullee fee ñee di jullee fee te fekk du dëkk bu rëy ba moo ko laaj mbaa leneen ngànt moo ko laaj dafa am nag ñu wax ne faaw dañuy dow rek ci jumaa ji daal ci la ñuy jullee saxal ci julli jumaa gi faaw dañu am yéene yi dogu ca loola ba loolay tebbiku nag ci coobare yàlla waaye faaw ñu war a am googa dogu waaye jàppal rek liñ njëkk wax ba tey daa am ñu wax ne julli jumaa ga balaa baax jumaa joojee ñu di fa julli julli yi juróom wax ji gën a wóor mooy loolu du ab sart mën nañoo def fee jumaa ja kenn ku ne di julli julli juróom yi ca sa jàkkay bopp bu bisu ajjuma jotee rek ñu door a ubbi jumaa ja jullee ca jullig jumaa ga war saxat wér na moom jullig jumaa ga bi raxabatihi ci atam ba wa turuqihi ak yoonam ya al muttasilati aji sës ci moom yi aji jokk ca moom mutlaqan ak nu man di demee maanaam moo xam jumaa ja daa xat moo xam jumaa ja xatut moo xam sàppee jokkaloo na ba foofa wala déet waa mu ni xat te tereef julli ga bi ximaa ci yooyu yaar inin dafa ndeem dàqu na ab diixu xatuk jumaa ja wattisaalu sufuufi ak jokkaloog sàppe ya ëttub jumaa ja ak yoon ya nga xam ne ñoo sar ba agsi ci jumaa ja xam ne dara làqu leen doxul seen diggante jumaa ji jàppal ne ku jullee ci ëtt boobee mbaa ci yoon yooyee su julli moom faw dañuy jàpp ne wér na duñ wax ne julli waatal waaye nag am nag teqale ci kaw su fekkee ne jumaa jaaxat wala sàppee moo jokkaloo ba àgg ca ëttub jumaa ja mbaa ci yoon yooyee moo tax nga jullee fa moom sa julli si buñu ko amul dara luñ cey wax su fekkee ne nag biir jumaa ja xatut sàppee jàppalowut ba génn ca ëtt ba mbaa ca yoon ya te teewul nag nga jullee ca ëttub jumaa ja mbaa ca yoon yooyee kon def nga lu ñu sib sib gu taratar nga xam ne moom daal dañ ko tuddeeg sib waaye mel na ne aay nañ ko aaye gu méttee métti moo tax sax mu indi baatub woo mu nihat kon su wax ji naree jaxasoo ci yow nga ne ak tuub jumaa ja ak yoon ya nga xam ne ñoo ñëw sar baax si ci moom bala nga caa julli rek na fekk biir jumaa ji xat wala boog sàppe ya sàppe génn ba agsi ci ëtt ba mbaa yoon yooyee su loolu amul nag te teewu laa jullee ci ëttub jumaa ja wala ci yoon yooyee sa julli wér na waaye def nga lu ñu bañ a bañ a bañ laa bi satxihi du jaageenu ci kaw teraasam ba wala bi ma du jaageenu ci la nga xam ne fajjira yiréef na ko maanaam làqeef na ko ka bayti xanaa diilihi niki néegub ay làmpam wa daarin ak kër wa xaanootin ak butik mu ne nag yéeg ba ca kaw teraasu jumaa ja nga jullee ca moom ku ko def ak julleem du baax mook yéeg ca kaw kaaba ga jullee ca kaw ñooyamoo lu araam la ku ko def ak julleem du baax teewul nag am na ñu ne bu dee jumaa ji moom bu fekkee xat gaa tax mu yéeg jullee ci kaw terrasse ba dana baax ba tey lépp loo xam ne dañ koo tabaxaale ci jumaa ji waaye digganteem ak biir jumaa ji jullee deful ŋàpp nga xam ne am na lu ko làq fa ñuy jullee moo xam day néeg buñ defar ngir xeeti làmp yeeg bagage yeeg yooyu wala kër guñ fa def ngir daara wala ay boutique yu ñu rangale foofa ñuy jaay ak jënd yooyu yëpp daal loo ci xam ne digganteem ak fa ñuy jullee ci biir jumaa ja am na lu ko làq néewul ŋàpp rek ku fa jullee julli ga du baax takk-takk bi daal mooy su foofa ubbikoo ne ŋàpp rek dara doxul digganteem ak jullikaay ba ñu jullee ci biir jumaa ja kon ku fa jullee am julli bu deful ŋàpp rek ku fa jullee du am julli wa sunna sunna leef na istiqbaalul xatibi jublu aji xutba ja kon nag àggale na sart ya tax julli jumaa gaa war ak sart ya koy taxa wér ak sax bu amee yu làqu ca biir yoo xam ne dañoo boole di sarti war di sarti wér kon mi ngi jàll ci wax nag sunnay julli jumaa ga dana ca tudd yett bi mu jëkk tudd mooy ilimaan ji bu dee xutba ñu wëlbatiku jàkkaarloog jëmmam am na ñu ne sax lu ñu sopp rek la am nañu ne it daa àgg ci war na ko almudawana indee sax ak waral la tegtale ndax dane wa ida qaama al imaamu yaxtubu fa xiina idin yajibu xatuxul kalaami wa stiqbaaluhu wal insaatu ilayhi waaye daal doon gi sunna moom lañ gën a dëgëral neenañ maali neen woon sax assunnatu indana an yastaqbila annaasu al imaama yowma aljumua ida araada an yaxtuba man kaana minhum yali alqiblata wa gayraha loolu ma nga ca almuwatta booy jàng muxtasar moom daa waxoon ne ña nekk ca sàppi su njëkk sa ñoom duñu leen sant ñu wëlbatiku di jàkkaarloog jëmmi ki xutba ñu nekkul ca saatu su njëkk si rek lañuy sàkku ci ñoom loolu ba tey am na genn wuute am na ñu ne sa jëmm du jar nga di ko wëlbati soo wëlbatee sa kanam jëmale sa kanam ci moom rek mu doy am ñu ne jëmm ji ci boppam mooy wëlbatiku jàkkaarloog jëmmi kay xutba na addis ba andee nag moom dafa mel ne dafa jamtalu yaar yëpp ndax yax ba mooy ida qaxada al imaamu ala mimbar yowma aljumuhati fastaqbiluuhu bi wujuhikum war muquuhu bi ajfaanikum su ilimaan bi toogee ci kaw minbar bi ci bisu àjjuma ba na ngeen ko dëgmal bi wujuhikum boo nee ak seeni jëmm wala boo nee ak seeni kanam ne ko jàkk nag ak seeni mbari bët mel na ne kon jamtalu na yaar yëpp lee mu ne itam ida qaxadal imaamu mel ne su ilimaan bi toogee rek ci minbar bi ñu daal lay digal nga wëlbatiku jàkkaarloog moom baa boo di topp wëlbati sa kanam nga wëlbati sa kanam jëmale ci moom dañoo jàpp ne yax bee indi isaa qaxada rek waaye lu mu jublu dëgg dëgg mooy su taxawee ba tàmbalee xutba kon soo bëggee gàttal daal njurum malik ci googu wàll da ngay wax ne lay sunna mooy bu ilimaan taxawee di xutba ñépp wëlbatiku jàkkaarloog jëmmam ja ka koy gis ak ka ko gisut kay dégg ay waxam ak ka déggul ay waxam koy takk ci wal madhabu istiqbaalu daatihi lil jamihi man yaraahu wa man laa yaraahu wa man yasmaahu wa man laa yasmaahu dañu wax nag bu dee ci jàkka ji ci kaaba ga ak bu dee jàkka yi yonante bi ci madina moom ñëpp ñëpp duñ mën loolu na jàkka ja demee foofee ca kaaba ga ak ca madina mooy tax ñëpp duñ ko mën ñenn ñaa koy mën rek wajuloo suhoo sunnaal nañu ak tooga moom aji xutba ji aw wala kulli xutbatin ci njalbeenu bépp xutba ñaari xutba lay doon mu ne nag sunnaal nañu balaa tàmbali xutba bu njëkk bi mu toog as ndiir su gàtt mel ne ndiir suñu mën a jànge qul huwa allahu ahad bu xutba bu njëkk bi jeexee itam balaa tàmbali bopp ñaareel ba mu toogaat ndiir su tol noonu door a jóg def xutba bu ñaareel bi wa xuslun ak cangaay li kulli musallin ñeel jëpp aji namma julli ji jumaa ja walaw lam talzamhu ak doonte waru ko ñetteelu sunna bi mooy sangu cangaay lu mel ne nit ñi sangoo janaaba képp koo xam ne am na yéene dem julli ji rek doonte sax julli ju màgg waru ko niki kuy tukkite yéenewu faa sax ñeenti fan wala jamono yi jaam amee jaam wala jigéen wala gone du tee rek sunna la ci moom mu sangu ndegam nar naa dem ca jullit jumaa ga wa sixatuhoo wéram ga bi tulooxil fajri nekk na ci fenkuk fajar wattisaalihi ak bu jokkoom bi rawaaxi ca dem nga ca jumaa ja a rawaax day firi ngont waaye dem rek lañ ci jublu fa in fasala ndeem tàggale na ko kasiran lu bari aw taxaddaa wala mu añ lay firi waaye wala mu lekk rek lañ jublu aw naama wala mu nelaw xaari jëxoo ci bitteem maanaam ci bitti jumaa ja ixtiyaaran ci coobarewu aha daxoo kon mu baamu cangaay la bu bëggee am sunna sa cangaayul ajjumali mëni su ko def njëkk fenkook fajar gannaaw nag bu fajar fenkee rek moom mën nga koo def daldi wuti jumaa ja ndegam da nga fay toog ba xaar fa julli jumaa ga dañuy sart itam bu sangoo ba noppi rek daldi wuti jumaa ja bu fa toogaatee lu néew rek amul solo du wàññi dara waaye su fekkee sangu na ba noppi te dalul dem ba mu yàgg kon ñàkk na ca ngaay la su bëggee sunna sa faaw mu dellu sanguwaat ba tey bu sangoo ba noppi lekk mbaa mu nelaw te lekk ga mbaa nelaw ga topp bànnee xam la waaye agutoon ci xiif lool agutoon ci gëmentu lool lool de bu fekkoon ne dafa àggoon ci xiif lool mbaa mu gëmentu lool mu daal di faj lorom ci lekk-lekk gu gaaw mbaa nelaw nelaw yoo xam ne yàggut loola kon du yàq ca ngaay la waaye gannaaw bu sangoo moom bu fa lekkee mbaa mu nelaw fa ci kaw coobareem mbaa boog nelaw yi day lor la ngànt la waaye nag dafa yàgg boole ca yooyu yëpp faaw rek bu bëggee sunna si cangaay la day dellu sanguwaat sangu woon nag ba àggal daldi wuti jumaa ja yàgg nag ci yoon yu ba lekk ca mbaamu nelaw ca mbaamu dama dem ba ci biir jumaa ja mu lekke fa mbaamu nelaw fa loola du yàq dara ca cangaay lam amoon bul fàtte ni cangaay li sunna la bu ñu ne yàqu na itam su bëggee tuyaaba dellu baamuwaat ko waaye su sawarut mën naa bàyyi rek du tee julli ga moom baax wanu di ba soppeef na tax siinu xëy ët